bokki julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jëggal suñuy rëcc rëcc suñu diggante ak moom te dox suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam ba li muy wax ne balaa kenn dugg aljana daf koy tàggaleek moom yàlla nañu yàlla tàggaleek moom fii ba bu ñuy dugg aljanna mu bañ a am benn charte amin di ndokkeel bokki jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru rajab di ndokkeel sénégalais yépp ak murit yépp ci weer wi ndax weer la woo xam ne wu yàlla def ay kéemaanam la ay mbóotam yàlla ñu ko yàlla xamal ba lislaam ñëwagut bokkoon na ci yeenti weer yi nga xam ne ceddo ya daawuñ ca fayu ak tooñ daawuñ ca tooñ dañ ko faa bàyyi woon moom la alquran di wax naan inna iddata shuhuri inda allahi itna ashara shahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun xurum rajab ci la bokk waaye bi lislaam ñëwee it yàlla daf caa feeñalaat ci mbóotam yooyu lum ca dencoon ndax julli gi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci la ñuy xàmmee ab jullit ak kudul ab jullit julli googu ci weeru rajab bi la ko suñu borom wàcce woon ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu teg ca ne bu ëllëgee yowmal qiyaama bu yàlla di àtte jaamam yi kenn ku nekk day xool digganteem ak julli noonu demee woon su julleem baaxee lépp baax su julleem xawee taq suuf nag ñu tàmbalee seet yépp te yàlla kum seet dana gis ci moom yàlla nu ñu ci yàlla musal waaye li tax ma boole ci murit yi les jullit yépp a ko bokk murit dañ ci am seen xaas ndax murit yépp Sëñ Tuubaa lañ yaakaar fab ko teg ca kaw yemalewuñ ko dara fonk ko moom ci jëmmam donte ñu bari jaxasoo wuñ ak moom ci xam waaye ñu fonkal ko mbooleem fu joxañam nekk waaye yàlla xéewale na Sëriñ Tuubaa ci weeru rajab ñaar ci ay njabootam am na ku ñuy wax Sëriñ Abdullahi Mbakke ñu ne Sëriñ Tuubaa mi ngi ko tudde Seydina Abdullahi ibn Abbas loolu ci ñun man ngay dox ba taseeg nit waajoo ko woon waajoo ko woon ngeen nuyoonte dem waaye loolu amul ci mbirum suñu borom lu ci nekk bu koy def xamoon na bis ba muy sotti ak lam ci jublu lépp loolu am na njàngatum boppam waaye alaji Muhammadul Faadal itam ci weeru rajab la feeñ sëñ Abdullahi Mbàkke fukki fan ak juróom sëriñ Falilu ñaar fukki fan ak juróom ñaar mu mel ne ñoom ñaar ñooñu seen ub daje ci rajab ñàkkul lu ci sëriñ Tuubaa di joxañ murit bi ndax Seydina Abdullah ibn Abbas bu ñuy lim fóorey lislaam yi te ñi cay diggu lay bokk ndax bokk na ci ñeenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon jàkkaarloog yàlla ñaanal ko ne ko yàlla na yàlla yàlla nga defal kii ak dégg ba lu mu gis ci lu mu gis man koo taawil man koo dégg kon Sëriñ Tuubaa joxoñ na ci murid yi ne yoon wi yoonu xam-xam la loolu daje na ci raj waaye Sëriñ Fallilu mi nga xam ne bis bi mu ganee àdduna mooy bis bi julli wàccoon Sëriñ Tuubaa joxoñ na ci murid yi ne yoonu murid yoonu jaamu yàlla la jaamu yàlla mooy jëfe xam-xam jaamu yàlla mooy jëfe xam-xam lu ci nekk mu xam fa muy tàmbale ak fa muy yam kon bataaxal bi mooy weeru rajab sëriñ bi bind na ci murit yi bataaxalu murit war naa am xam-xam teg mbiram ci xam-xam di jëfe xam-xam mooy lu leer nañu ndax xam-xam mooy kan mooy dëkk bi nga xam ne ku ci bëgg a dem li ngay def sa yóbbal mooy ragal yàlla ku ragal yàlla ragal yàlla dana ko wommat ba jox ko lu leer nañ bis bu sëpp mu di ko jox lu luy gën a leer ci moom digganteem ak boroomam ak digganteem ak jaame yàlla ji te yowmal qiyaama la fa yàggal nit ñi ñaar yooyu rek la lu nit def yàlla ak lu nit def jaamoob yàlla moo tax suñu boroom wax ne yéen ñi nangul yàlla ne mooy buur mooy bummi moo moom te moo sañ na ngeen ko ragal su ngeen ko ragalee dana leen wan bu leen wanee da ngeen xàmmee li ñu war a jàpp ak li ñu war a jàpp lii dëgg ak lii ay caaxaan kon sikki sàkk nekkut ci ne xam-xam ak leer la kon leer leer bu ñuy jàngale lu nekk nam tudd dañ naan lii tur la woo xam ne buñ ko waxee bàyyee ma lañ ci jublu lii buñ ko waxee gàncax lañ ci jublu lu ci nekk ma ne sa ko laal lii bu ñu ko waxee jamaat lañ ci jublu mooy loo xam ne da fa mu taxaw fa nga koy fekk fa nga koy bàyyi du du màgg du wàññi ko waaye am na boo xam ne leer mooy loo xam ne daa am tur te mu ni su ko laal ci misaal nit ki su bëccëgee buy dox te fekk ñu ngi gis fu ko neex mën naa dem ci bëccëg bi bu waree fas walla oto fu ko neex mën na ko fa yóbbu waaye bu guddee fa gën ci fa muy taamu su bëggee doxi soxla te munta ñàkk day doon fa ami làmp walla moom ci bopp ma yorob làmp kon ci bëccëg ma nga àndoon nag ay bëtam walla ay gëtam ci guddi gi mu ànd ak gëtam lu tax soxla wutoon ab làmp ci bëccëg te di ko soxla ci guddi gi mooy bët day xool waaye du gis ci leer lay gis ak leer day am bët di gis kon ànd gi nit di ànd ak ay gëtam guddi ak bëccëg bu guddee moom bëccëgee moom fu ko neex dem ndax leer na su guddee balaa dem daa am ab làmp door a mën a gis fa muy teg tànkam kon damay fab jëmmi nit def ko muy ay gët ma fab xam-xam def ko muy leer nit bu bëggee dem di àgg day fexe ba ànd ak ak leer muy xam xam la tudde ak leer xam-xam teraanga la bi Sëriñ Tuubaa ñëwagul am na ñoo xam ne seen xam-xam lañ daan jaay di ko dunde ñu di leen ci naw ak lu ñu mën a xam rek rawatina xam-xamub diine ñii di bindal ay saafara ñii di leen ci jox ñuy dund ñii di def ay tàkk ay dàkk ñii di def ay xab lu ci nekk am nañu ko moom ci ci ci ci nit ñuy jëkk ñenn ñi kundu ak kundu waaw kundu dëkk sàngam wala dàkku dëkk sàngam wala xàpp dëkk sàngam danañ ca am loo xam ne ku dul ñoom mënoo ko ci wan a am xam-xam la tuddoon booba waaye ngëneel la ngëneel mooy loo xam ne dañ cay ëpplante ku ci nekk dana ca am lu moroomam di soxla ñett yooyu daje na ci xam-xam waaye bi Sëriñ Tuubaa ñëwee it ña amoon xam-xam dañ ko noppal daf leen ko wëlbatil ndànk rek tuuti rek ne leen nii ngeen nii lay jëm tuuti rek jëmal sa ta- si ndeyjoor tuuti wala jëmal sa càmmooñ tuuti rek bàyyi lañ ci nañ doon def waaye ñi ko gënoon sonal mooy ñi nga xam ne su bindee duñ ko xam su waxee aaya duñ ko xam su tombee duñ ko xam ñooñu moom bu fekkee sonnoon na ñooñu ñoo ko gënoon a sonal fexe ba bokk ci xaaj bi noppal Sëriñ Tuubaa nag moo gën moo gën fuuf kon ku bëgg a defar nit danga koy jàngal xam-xam waaye ku bëgg a defar aw xeeti da nga leen di jàngal xam-xam waaye moo ne bâtiment xam-xam moo koy taxawal moo koy sàmm ba ñu bari man ko faa fekk waaye nag toll na ci diine lislaam diine ji noo xam ne loolu la ñëpp di wër tolluwaayam ba la ñëpp di wër jullit bu nekk soo koy ñaanal soo bëggee xolam set danga naa ko yàlla nga dem aljanna mu ne amiin doon ci li ci diggante bi nanguwul nga di ko ñaanal faatu waaye aljanna moom nangu na ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne waxuma la ku am xam-xam te di ko jëfe waaye ku mu tax a jóg rek mu di ko wuti jaar na yoon wu ko yóbbu àjjana jaar na yoon woo xam ne bu ko wàccut dana dox ba dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal te loolu ku dem ci alxuraan da nga ci fekk ay aayaat yu bari yoo xam ne day wan nit ñi diggante bi nekk diggante boroom xam-xam ak ku amul xam-xam muy diggante boo xam ne dara lay dox mënu koo dox ndax yàlla nee na bu ëllëgee te fii la koy tàmbalee day yëkkati aw nit bañ di leen seen ñooña mooy ñan mooy ñi ko gëm waaye ñi ko gëm daf cay tànnaat boroom xam-xam yi teg leen ca kaw teg ca ñi ci topp teg ca ñi ci topp mi ngi aju ci kenn ku nekk xam-xamam nam nam toll noonu la jataay toogaay yi di sutantee waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ku dem ci luñ ne moo ko wax walla moo ko doon def xam-xam piir lay doon boo xam ne la cay tegtal ci xam-xam boroom xam-xam yi nañ xam-xam nañ koy xàmmee ak lu ko doonut doon naa ko misaal keroog mooy luñ la wax mu jëm penku nga topp ko te la la ko tax a topp mooy noo ko wëlbatee mu jëm sow mu tëla ne nañ xam-xam a nga noonu xam-xam a nga noonu waaye su fekkee mën naa wëlbatiku jëm sow walla benn bëj ci bëj ñett yi ci des xalaat la dañoo war a woo ka ko doon wax ne ko loo ci jub moo ne ci gàttal bokk yi xam-xam boobu mag ñi nga xam ne fekkuñu leen fi ñoom fekkuñu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dund nañ daal bokk nañ daal xarnu buñ dund walla ñaari xarnu yuñ dund ak ñoom dafa mel ni foofee leen tegoon seen tànk mu yam ca kepp te bañ koy laata am ba di ko ba ci teg seen tànk sonn nañ ci coono yoo xam ne nit daana dem ba am soxna ba taawlu ne fa ñukk soxnaam saak taawam ba laxas dem wutiwaat xam-xam dem jàngewaat alxuraan jàngewaat xam-xam ba ñibbisiwaat dégg ñu ne barab sàngam ka fa nekk taxassusam xam-xamam bépp ci nax wu la jëm mu dellu laxasal ñu ne ko aroot la jëm mu laxasaat ñu ne ko balaax ak bayaan moom ni mu ci mel mu laxasaat bàyyi fi waa këram mu jaral ko loolee kat bokk yi moo fi nekk bañ fekk ko fi waaye li ci ëpp du ñu jóge bitim réew ñoo ko fi indi bañ fekk ko fi ñun ba di sa jariñu waaye ñi dëkkoon si réew mi ñoo ko fi indi ak coono yu metti sëñ bu mag bii sal radiyallahu anhu daana jóge dëkk ak dëkk di fa wuti benn téere boo xam ne ka ko moomoon daf ko ne du ma ko du ma la abal téere bi waaye mën naa di la abal par tuuti ngay sotti nga xam ne balaa mas a jàng ci Mamor day dox lu sore sore sore sore xame sa dëkk ba dem koo ko jox ko wenn xët mu bind ko ñëw bu xëyee delluwaat boobu xamuñu woon ne Seexul Xadim lay nekk waaye suñ ko xamoon dañ koy fa jox téere ba rek ak la ca nekk joxaale ko seen bopp waaye faaw mu jaar fi nga xam ne ku koy topp da nga fa mën a jaar da nga ko da nga ko ca mën a roy téere yombutoon fànn yi ñi ko xamoon ba peeg ko di ko jàngale bari wutoon waaye ñenn ñi ci nekk jaraloon na leen lu bare bare bare bare wan gannaaw seen kër di wuti alal di wuti kër waaye wuti xam-xam moo ne loolu di yàgg gut yàggagul dara jamono bëgg a wëlbatiku maanaam ni xam-xam doon tabaxe ñàkk xam-xam bëgg koo wëlbati daane lam tabaxoon lépp ndax juñu naa léegi ci weeru rajab ne jullit yi am nañ ci lu ñuy fàttaliku muy anniversaire bu julli danañ ci dellusi ci ajuma ji di ñëw waaye murit yi am na lu ñu ci fàttaliku muy ganeek àdduna ak sëriñ Abdullahi Mbàkke ak Cheikh Mahmadul Fadal kii sëriñ Tuubaa duppee ko kenn ci ñi gën ñi raw ci xeetu Sayyidina Muhammad joxoñ na ci xam-xam muy weeram waaye yàlla xéewale ko ci koo xam ne mooy Cheikh Mahmadul Fadal mi nga xam ne mook julli ñoo bokk bis bu ñu wàccee àdduna joxoñ na ci jaamu yàlla xam-xam ak jaamu yàlla wala jaamu yàlla mooy xam-xam bu ñuy jëfe lu mu ci man doon baax na waaye suñ demee ba bu rajab teroo lu yéeme la waxoon nañ ko fi daaw waaye mag dajale woon na mbooloo ba ñëw mu tàmbalee waxtaan ñu ne lii la fi doon wax daaw rek mu ne waaw waaw ndax daaw daaw ba ren ba yëwu leen dama leen doon tere daal siiw lool ñu ne weeru rajab li muy bokk ci weer yi yi ñu war yi nga xam ne sopp nañ ko ko màng lépp waxtaani wuñ lool waxtaani wuñ màng ko ci koor woor ko njariñ la ca nekk waxtaani wuñ woor ca ñetti fan wala woor ca benn bis la muy jariñ waxtaani wuñ fanaan ko naafila la muy jariñ waxtaani wuñ ca yendoo jàng alxaan li muy jariñ déedéet waaye dañ cee siiwal ne ku ca lekk naat ak naat ku ko ca am rey ko lekk ko ren boolewaat nañ ci boole ko suratul waaqia bind suratul waaqia raxas ndox ma togge ko naat ba lekk ko dangay naat ba faw waaw kañ la yàlla tàmbalee tële dama yàlla jégal ci baat ba naataange du ko mën a indi lu dul rajab tey tële na ko ci bindeefam yépp waaye ci naat la koy mane par at loolu mel ni xel sax waru ko nangu ana loo xam ne naat da koy man te ganaar du ko du ko man xëy na wala ganaar du ko man waaye lu tax ñu tànn ci naat mbaadu dañuy bëgg a delloo nit ñi jaamu xiram mbaadu daa am koo xam ne dañ koy dangay rey nangami naat am nangam ak nangam mu mu xeetal ci nit ñi ñu reyal ko ko mu fexe bañ rey ko moom ci aw làmmiñam loolu wuti nag bataaxal Sëriñ Tuubaa bi loolu ci rajab yàlla tëlewut benn waxtu bu muy mën a naatal nit ki xanaa kon ku ci rey am xar dañ koy xaaraan ba faw te xar ku ko rey lu dul rajo bit am na ñoo xam ne bu ñu ko yëgee dem xaaraati ko xanaa ku ca def nangam aw fas des na ko fasal nangam ak nangam ak nangam bu fekkee jinaas lañ ci bëgg a jëfandikoo naat ku ko rey naat naat jële ci naataange loolu lu mat a moytu ci ab jullit la rawatina ab taalibe rawatina ab murit boo xam ne Sëñ Tuubaa da ko bind bataaxal ci weeru rajab mu war caa wut ngëneeli yi ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digg yëpp yu bari la ginnaaw dugg nañ ci weer yi ba noppi weer woor ko lépp weesu na moom digg nañ lu rëy rëy rëy rëy ci ku woor rajab lépp ak shaabaan ak ramadan weesoo gu li ci des ku ne mën naa umb suba waaye nañ ci rey naat jaxase ko suratul waaqia te suratul waaqia di jàngale pas-pas dëgg ku ca dem da nga ca fekk mu naan yàlla mooy yëkkati mooy daane bu ëllëgee ñi jiitu woon ci gëm yàlla ñi jëkk gëm ñoo cay topp ñooy jiitu ña ca topp topp te ña ca topp topp te ñii lañuy lii la ñuy am ñii laa la ñuy am jàngale na ko ci jàngale ci àjjana neexaayoo jàngale ci sawara mettiwaay ba ala sururin mawduunatin muttaki'ina alayha mutaqaabiliin yatuufu alayhim wildaanun muxalladuuna bi akwaabin wa abaariiq wa ka'sin min ma'iinin laa yasaddacuuna anhaa wa laa yunzafuun wa faakihatin mimmaa yataxayyaruun wa laxmi tayrin mimmaa yashtahuun wa xuurun 'aynin ka'amsaali lu'lu'il maknuun jazaa'an bimaa kaanuu ya'maluun laa yasmacuuna fiihaa laghwan wa laa ta'siiman illaa qiilan salaaman salaaman wa asxaabul yamiin maa asxaabul yamiin fii sidrin maxduudin wa talxin mamduud wa zillin mamduudin wa maa'in maskuub wa faakihatin kasiira di wax a wax a wax ba agsi ci asxaabu shimaal noonu la àjjana neexe wépp lépp lu nit di xalaat ci neex rek tudd na ko foofu li nit xam ak li mu xamagul waaye asxaabu shimaal ñoom fii samuumin wa xamiim wa zillin min yaxbu yaxmuum laa baaridin wala kariim innahum kaanu qabla dalika mutrafiin wa kaanu yusirruuna ala alxinsi alaziim xinsu xinsun aziim niroo naag lii lool yàlla bind jaamam ñépp ne na ko doom aadama yi jëfandikoo te jaamoo ko yàlla ndax sax naat boobu ñu rey ngir ku ko rey da ngay naat wares na koo lekkam déet xurrimat aleykum almaytatu waddamu wa lahmu alxinziir wa maa uhilla li gayrillah wa maa uhilla li gayrillah rey naat bi ngir am naataange ngir mucc ci nangam xurimat aleykum addam wala xamal xiba ma ahal li gayrillah kon ximsun azim ku ca dugal loola doo teg dara su boobaa kaanu yaquluun a ida mitna wa kunna turaban wa idaman inna la mabxusun aw abaana al awalun qul inna al awalina wal axirin la majmuuna ila miqaati yawmin maalum di wax bay waaraate ci nawet bi banaan afaraytum maa taxrusun a antum tazraunahu am nahnu zaariun bu ngeen dee bay yéenay bay wala yàlla may bay yéen jiire ngeen di def dem xamu leen jaaxaan na xamut déju na yàlla mu koy fekk fa mu nekk wëlbati ko taw ci kawam lu waaye jiwoon mu génneel la di ko lim di ko lim ba saar wa àgg saar wa wuute na ak lool dàkk weeru rajab di ko booleeg naat di togg di lekk waaye saar woowu koor gi bu rajab ñëwee dañ ko war a woote ci jàkka yi di leen ko tasal ndax li leen li leen fa indee woon ak fa muy mujj bu ëllëgee lépp ñu ngi ci biir saar kon buñ jëloon tey turandoo si abdullahi abdullahi ibn abbas di mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi baayam bari xam-xam lool danañ xam ne Sëñ Tuubaa bind na ci leetar murit yi ma jaaraat ci murit dañ dem jàngi xam-xam waaye wane na ca xam-xam ak dégg ko lu muy jariñ Sëñ Abdullahi Mbakke moomu radiyallahu anhu yàlla mayoon na ko lool am na ku ko fekke mi ngi dund Tuubaa la nekk mag la léegi nee na mas nañ fa togg añ boo xam ne bii lu dul xorom rek sëñ Abdullahi moo ko moom moo ko moo ko liggéey moo bay ceeb bi jën yi ci ndox moom fa moom fa def lañ nekk di dund li muy àndal yépp fa lañ ko jëlee ba mu des xorom kepp te neewoon na bu beneenee danaa wuti xorom ba dama wuti dara kooku mat naa topp mat naa toppandoo xam-xam ku dégg diine da nga xam àdduna xam lépp man yuridillahu bi xel yufaqihu fi diin fiq fiqu dégg diine nag tekkiwul xam nu ñuy julleeg nu ñuy woo rek ay atteem ak azaka ak ca aju yëpp déedéet waaye fiqhu nangam dina daa am fiqhul ibada am na fiqhul muamala am fiqhul mujtama am fiqhul fiqhu siyaasa am lu ci nekk nit ki danaan day taxaw ne yàlla lu may def mu ne defal nangam ak nangam ak nangam te yàlla ku mu joxañ boo demee da nga jàll waaye wares na cee toppandoo bu baax jàngat ci suñ fallu mi nga xam ne mook julli ña bokk ñu waxtaane ko ca ba xam suñ fallu mi nga xam ne dañuy wax ne tabax na jumaa xanaa kooku jullilu na jaamalu na yàlla waaye bind ab kamil bu ñu fi jànge xanaa kooku bokk na ci ñi fi wata alxuraan ñu ko fi bàyyi am na mag moo xam ne loolu sax wuruma ko wax ku ma jegele ci bokk maam day ñëw ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ne ko noo def ak téere bi mu ne ko mokk mu ne ko mën naa ko wax te duma ko xool mu ne ko loolu day mooy mokkal alxuraan mu ne ko moo ne mën naa ko bind te duma ko gis de mu ne ko loolu damay wattu alxuraan mu yari yëf waxtaane wuñ ci suñu fallu waxtaane wuñ ci suñu abdullahi waaye naat lañ jël def ko muy waxtaanu weeru rajab bépp kenn ku nekk di fexee amam naat mujj naat seer lool ba yàq ga suñu abdullahi doon wax bañ fi yokkee ceeb dañ ko jëlee ci juróom-ñaar yóbbu ko fukk ak ñeent kilo pepp di jar juróomi dërëm mu ne jël ñetti kiloy pepp jënde ko benn kilo ceeb ku ko jàppe yàq-yàq la ku ko jàppe wut yàq-yàq la ndax dugub yaa ko bay ci sa loxo te ceeb dañ ko jëlee daa dugg ci bata bi daa wàcc ci bata bi képp fay duwaan du agsi nga jox borom ceeb ba la nga amoon ko si ne mu yóbbu ko nga ne tocc waaye fab loo njëg goo xam ne boo boo ko boolee juróomi yoon mu jox la am xar nga ganalee ko ñi màggal si démb ci màggalu si Abdoulahi gi wala nga xaara ko ñi màggal màggal suñu fallu nga jënde ko yaare naat di ca dàkk waxi nit ñi sootul waaxaat moom ma ngi koy móolu moom ndax togg na ko ci am ndox mu tàng te da ko waroon a jàng dem jëfe ji ko di ko nëpp nëppal ne ko Sëriñ Tuubaa doon def teg ko ci lal bu kawe matelas bu nooy di ko xëpp laj ko lañ yaa kitaabal karima anta xabibi ba mu àgg huwa xalilun wa xabib moom mu jël ko bind ko ndax jaamu xëram rek bëgg nangam loo xam ne ci naat la ko yaakaar yaakaaratul yàlla yaakaaratul siñ bi yaakaaratul ngëneeli rajab waaye naat la yaakaare naataangeem léegi naat bi ñu rey ba noppi suqi ko mu tàgg tàggale ko dunq ya tàggale ko laaf ya naat kooku lu mën a rati nit dara mënul mënatul dara nañ delloo si waat xel yi te luñ wax ñu dem laaji ko ndax pël day léeb ne balaa ngay def li ngay def da ngay xool ba xam kenn nga fi mu ku koy dégg moo gën def ko ba noppi ba liy xew xew ko door a xool ba xam ni ñaa ngi fi mu kon ku ko defutoon na tey te dem ci boroom xam-xam bu leer xam-xam te ragal yàlla te maandu mu ne ko luy àtte rey naat ci rajab ak lekk ko ak lu ko wuteel ak Shaabaan ak lu ko wuteel ak jumaada saaniya wala jumaada axira axira yàlla na yàlla defal dégg ak topp. te xew yi ñu séntu yépp ci kanam yàlla àggaluñ ci ak jàmm te ñu weesu ko jàmm te daje ci ak ngërëmal suñu borom yaxfirullahu lana wa lakum